opposition bi dem élection législative opposition bi ñuy wax opposition radicale te Sénégal yi xam ko moom la Sàllu Macky commencé di suul Saalu Saalu Sekk lay wax Saalu Sekken waaw Saalu Cekken di commencé di suul Saalu Cekken boo ko déggee Sall ak Sekk Saalu Cekken ñu ngi commencé suul opposition bi demoon local demoon législative muy Yewwi Askan Wi muy wàllu ñaari ay bis yi dañ leen fàtte au moins sax waa wàllu ñoo ci xaw a génn mhm. tojkaani ni ñoom bëgguñu bokk xuma ci F 24 fu Aminata Touré bokk lu ñu fa bokk mais xam nga ci guerre guerre politique fu nekk nii créé nañu fi nekk nii xeexoo ci biir opposition bi parce que Aminata Touré léegi dañ koy compté waale ci opposition donte woon comptable la ci gestion Macky Sall mhm. mais Sénégal yi nekk nii euh, Ousmane Sonko moo yey annoncé waat ne mais ku tur yeneen coalition yi déggoo kenn Bougane mi dax xoona wax ci Sénégal gisatoo ko mu dem fenn léegi ñëpp ñu ngi ci saalu cekkeen loolu lañu bëggoon ah objectif bu am solo lañu amoon léegi nag opposition bi ñuy wax radical ba tam leen ba tam leen jaxase leen ak sénégalais yi euh, fokk ñu gëm démarche ak dynamique bi ñu jaayoon sénégalais yi pour indi changement parce que loo mën di dégg ci wàllu politique sénégalais bi lam daa dafa sonn fokk ñuy bañ di fàtte politique sociale question yi ngay posé mooy coono gi sénégale yi nekkee souffrance bi Sénégalais yi nekkee lan moo ci doo ko doo ko gis muy feeñ benn yoon ci discours politique gu gars yi euh, président Macky Sall nee na Sénégal dafa def yokkute ci wàllu koom-koom vraiment vraiment kan moo ñi mee taxaw ci Sénégalais yi ni leen seen pouvoir d'achat dafa yokk diggante daaw ak ren kenn ñi ma a def campagne wax ko Sénégalais yi et pourtant moom nee na Sénégal dafa yokk ci wàllu koom président Macky Sall amul détenu politique vraiment un leader politique parti poste Facebook magistrat institution bi tax Cheikh Diop bu nekk ci biir institution ma ëmbal ko normal constitution boobu man moo ma jox droit may dénoncer ci bu jotee boobu noonu Cheikh Diop ni man dina ma ci duma xaj ma ci sama ay droit loolu du détenu politique loolu lan la tudd gis nga saalu cekkeen bi foog ñu génn ci coowal politique lii opposition bi dugg ci société civile dugg ci presse bi itam am rôle bu mu ci jouer euh, comme comme seen reportage bi ngeen def démb ci pont bi nga xam ne bi ñu ko inauguré léegi yàggul géej gaa ngi koy waaj a nangu très important très important yooyu la ñuy fàttali ñi jiite réew mi leen seen infrastructure yi ngeen ñi annoncé def ci ay milliards def ci ay manifestation policier yi taal ci ay lacrymogène mu ngi nii fii la mujj jagul euh, voilà jagul mu ngi nii di commencé yàqu voilà yéen a ñu digoon fii autopont ñu ngi xaar fan la travaux yi toll yéen a ñu waxoon terre bi dafay daw tel date euh, Birahim <laughs> bi am Me Omar mu nekkee ministre bi yoral wàllu transport ñaata yoon la ñu annoncé ouverture autopont yi finalement Mansour Faye moo ko inauguré gré hmm. euh, ñaata yoon la ñu annoncé BRT bi jublu ci liggéey bi gisaguñu dara te tey Dakar Dakaaru lépp ni tekk mobilité bi da xëy di liggéey def une de temps ci yoon bi ci foroon def benn cinq minutes yooyu ay question la yoo xam ne politique yi dañ ci war a dellu soit askan wi surtout ñun presse bi te génn ci saalu cekkeen bii parce que foofu rek lawul jafe-jafe réew macha allah. xaaral ba ñetteel bi ñëw sax. am na ñetteel bi ah, ñëw. libéral yi libéraux yi laay wax li ñu bëgg Cheikh <laughs> mooy. gis-gis ñu yem rek ci ñoom te dynamique bi Sénégal yi doon doxe ba tax ñu indi lu musta am ci histoire assemblée nationale muy tolloo kiif kiif diggante majorité ak opposition ci ay député à l'assemblée nationale dynamique boobu Sénégal yi duñ ko bàyyi mooy fexe indi changement ci souffrance bi nga xam ni tey moom lañuy ñuy dund euh, Birahim euh, ki nga xam ne moo di Yankhoba Diattara dañ ko euh, dénk lu am solo muy benn département voilà ministériel Ah, tey jii mu ah, jékki-jékki wan ko gannaaw ndax ah, fe bëgg a dem fekki mantooram def na ko sax muy Idrissa Seck parce que ne na lu mu xam ci politique moom moo ko <coughs> jox tey jii est-ce que loolu mën nañ ko ko naw euh, Idrissa Seck